bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim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 ñu ñaan ko moom buur yàlla tabaraka wa mu may ñu kendalug jàmm mbokk yi xam ngeen ne bokk na ci xéwal ya ñu yàlla dottil muy xéwalu julli fajar ci waxtu su néew bañ doon def ci jàkk ji gannaaw bu noddkat bi yëkkati baat muy wax màggaayu yàlla muy wax ne moo ngi seede amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg kudut yàlla waaye mu di wax ne moo ngi seede ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg la yàllaa ko mu daldi ci teg ne kaay ci julli ba leen di jokkaleeg seen borom kaay leen ci julli ba doon échelle pon ba leen di jokkaleeg seeni borom kaay leen ci julli ba nga xamante ne mooy njëlbeenu audience ba ngeen di am seen boroom ci bés wi mu daldi si teg ne kaay leen ci texe bi nga xamante ne du ngeen ko amee ci feneen du ngeen ko amee ci leneen lu fa nga xamante ne mooy si julli mu daldi di wax màggaayu yàlla daldi si teg ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg kudut yàlla bu dee jamonoy waxtuy fajar la mooy jamono yañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw laata muy jeexal woote bu mag boobu danaan julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee moo tax nga dégg ci nodd bi jamonoy fajar mu naan salaatu julli xayrun moo gën mina nawm nelaw ba ngeen nekke kon képp ku yàlla wërsëgal delloo la sa ruux ba bokk ci ñuy joxe waxtu bu mag boobu rencontation bu mag boobu nga di rencontre sa borom premier audience ba ngay am mag sa borom ah war ngaa sant yàlla moo tax yonent bi ne jamono jooju nag képp ku yàlla wërsëgal nga fekkee ko amul dara lala la war lu dul nga ne alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne allazi ahyaana moo ma dundal baada ma amaatana gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw wa ilayhi nusuur ci moom yàlla dong lañuy dellu bu ñu jeexalee dundu àddina ba ñu nekkee su ko defee nga tàmbali sa bés bi ñaan bi nga xamante ne moom la la yonent bi tegtal salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi yonent boobu sallallahu alayhi wasallam ma ñu tegtal ñaan bi ni mel saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñamu yar ci seen keppaar ña yaroo ci keppaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu tamit ñañu yar ci taabi'uuna yi ridwanullahi alayhim kenn si ñoom di xasnul basri rahimahullahu ta'ala rahmatan waasia mooy fàttali doomu aadama kàddu nga xamante ne wala message boo xamante ne kenn ku nekk ci doomu aadama war nga kaa mën a bàyyi xel képp ku nit moo xam jullit nga moo xam doo jullit waaye kàddu gi nag jullit yi ñoo ci am particularité bu mucc ay waaw jullit ñi ñoo ci am walla ju bari waaye xataa ku dul sax concerné na dalaa concerné ndax danga war a bàyyi xel lu baax li ni mel nga xamante ne diini islaam léppam jàmm la léppam yiw la léppam jàmm la waaw amul dara lu fa nekk lu dul jàmm ndax diine moo tudd assalaam diine bi moo tudd assalaam jëfandikukaay bi nag mooy al waaw moo tax buur yàlla ne ñu ci alquran inna diina inda allahi l islaam waaw diine ba mooy diine bu tudd al islaam waaw ñu baax ñakko doon dund nag sàmmal ñu ko bi suñu kilifa jotsi suñu sëriñ yi jot yi tamit daldi ko sàmm bi suñu sëriñu sëriñ jotsi jot si waajur yi jot ba tey ñu ñu di ko nab nabi yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay ñuy wax rabbana laa tuzig quluubana baada is hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana faxfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajcalu fi quluubina xillan lilladina aamanu yal nañu yàlla fayal suñu mag yu njëkk yu ñu jiitu ci islaam waaw ñu sàmm ko ñoŋal ko ba gaa baax ñi jot si waajur yi yi jot si suñu sëriñu sëriñ yi si ba yàlla dogal ñu nit ñu di ko nab nabek yéen yal na leen yàlla fay yàlla bu yàlla dogal xolu iñaan suñu xol suñu dënn jëmale ko ci ñàngank diini islaam ba tey ñu jot si yàlla bu ñu yàlla xeebal ñooñee yàlla bu ñu yàlla xeebal kilifa yu njëkk yi yal leen yàlla fay taxawaay ba ñu taxawee ci islaam kenn ci kilifa yu baax ñooñu mooy xasanul basri rahimahullah yal na ko buur yàlla yërëm yal na ko buur yàlla yokk yërmande mooy fàttali mooy partager message bu foor wi mu ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ni innama anta ayyamun li fi nekk kañ bés yay ñëw di jaar di jàll mooy bés yàlla fi tax a nekk mooy bés yàlla fi tax a bàyyi ba tax na bàyyil sa xel ku kullama zahaba yowmak bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la dañ ci sa dund bi ba tax na ndegem bés yi daal dañuy ñëw te bu ñuy dikk buñ la fi fekkee dañ lay filmer dañ lay enregistrer lépp li ngay wax nank xam jamono internet yi ñu nekk nii déformé transformé wëlbati waxu nit ñi daf ne xur ci pénc mi ngay wax sa lu baax waxsalu sa ñëpp mën a dégg nga gis ku jóge ko ci langue bu ñëw dagg ko for déformé ko walla créé fa loo xamante ne subhanallah loolu yëpp mënoon na ñàkk bés ba nga koy def bés bi mu ngi lay filmer bés ba nga koy wax bés bi mu ngi lay filmer keroog bés pénc bu dee kàddu ba nga transformé ci waxu jëmm ju baax ka doon wax lu baax ëllëg bés pénc transformation ba nga transformé kàddu waa jooju moo lay teree dugg arjan ñu ne demal xool ko boo ko gisee nga baalu ko àq bu la baalee nga ñëw dugg arjan foo koy gisee foo koy gisee bu dee loolu mooy sa taxawaay nanga nga jéggalu ñoo koy def fii ci àddina balaa keroog bés pénc ndegem soppi wëlbati kàddu nit ñi mooy doon sa liggéey la tax ñu wax ko du bokk ak yow noo ko transformé ak noo ko sopparñe kon bu dee loolu moo lay teree dugg àjjana na nga tuub nanga rafetal sa toggin ci pénc mi xamal ne bés ba ñëw jaar jàll bés boobu dootul ñëw te lëm la nga nekke yóbbu na ko kon na nga bàyyi sa xel dund bi jaru ko wallahi dund àdduna su éphémère wi bu dee loolu moo lay tax bañ a tàbbil kiru xewal ba nekk fa yàlla te yàlla di ñu wax ci alquran ne wal axiratu xayrun wa abqa waaw alaxira dugg arjanna mooy la gën mooy lay des ba faw kon waroo fi nekk di nekkee nekkin ba lay tax a yàqal dugg arjana woowee beneen boroom xam-xam di abdullahi bun awn rahimahullah moom ci magu kilifay diine yi lañu bokk ñoo yaroo ci keppaaru ña yonent bi yar di sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ña yaroo seeni keppaar am na ki ñu naan abdullah ibn awn rahimahullah moom it nee di wax ci nit ñi zikiru naas di tudd ayib ya nekk ci nit ñi di wax la nit ñi toogee di wax la nit ñi nekkee nee na loolu poson la nee na loolu ku ko mën a moytu mooy li gën waaye kaay mu jox la loo xamante ne loolu mooy faj mooy comprimé bay wéral feebar ba nekk ci xolu ñenn ñi ñuy tudd la ci nit ñi kon nañ leen dem ci Abdullah bun Awn ci pharmacie ba mu yor mu nar ñoo jox comprimé wala médicament bay wéral la nekk ci xolu ñenn ñi te mooy feebar bay ba nekk seen xol te mooy tudd la ci nit ñi la koy wéral nag ki ko bëgg xam ki ko bëgg jëfandikoo nag ñu topp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew Rewmi FM ñun ñépp ñu babbeeku dem ci santar médico ba Abdullahi bun Awn installé ngir mu jox ñu comprimé boobu moo tax mu ne ñu comprimé ba ma leen bugg a jox mooy kon na nga jël palaasu wax ci nit ñi nga remplacer ko di tudd waaw moo tax mu ne wa zikrullah amma di tudd yàlla loolu mooy dawa mooy comprimé ba nga xamante ne mooy faj li ci xol yi waaw comprimé bay faj li ci xoli yi mooy zikrullah di tudd yàlla di tudd yàlla di wax astaghfirullah yal na ma yàlla suturaal yal na ma yàlla jéggal alhamdulillah mboolem xeetu cante yu kawe ñeel nañu yàlla wala ilaha illa allah amul benn buur bu fi nekk ñu di ko jaamu ci dégg jaamu bu di njëriñe ñàkk kaa jaamu di lore du kenn kudult yàlla allahu akbar yàlla màgg na baat yi di ko tudd mooy comprimé bay faj di ci xol yi ku jigéen mën na ko ki góor man na ko jigéen mën na kaa wax góor man na kaa wax kon lii mooy comprimé bu sahaabi yi ñu ñu yar kenn ki yar seen keppaar mooy abdullah bun awn rahimahullah nee na wax li ci nit ñi loolu feebar la waaye kon kay ma jox la kay ma bindal la ordonnance ba xamante ne boo ko jëndee nga di ko jëfandikoo di nga wér péng ba tax na mu ne la wa zikrullah di tudd yàlla di fàttaliku kawteefu yàlla loolu mooy comprimé bay faj malaat feebar sikk ba nekk ci doomu aadama te mu doon di wax ci nit ñi di wax ci nit ñi loolu feebar la la koy faj nag mooy tudd yàlla kon jëlal tudd yàlla remplacer ko tudd la ci nit ñi bi léegi kenn ci sahaaba yi di ibnu mubarak rahimahullah dañ ko ne ijma lana xusnul xulq fi kalimatin qaal tarkul gadab dañoo ñëw ci ibnu mubarak ñu ne ko ah ñun dañoo bëgg nga tënkal ñu waaw ñu dañoo bëgg nga résumel ñu jikko ju rafet waaw jikko ju rafet lañ bëgg nga résumel ñu ko ci baat bu gàtt Euh, ibnu mubaarak bokk na ci la résumé jikko ju rafet mooy tarkul gadab waaw tarkul gadab dañoo ñëw qiila li ibnu mubaarak ijma lana xusnul xulq fi kalimatin qaal tarku gadab waaw ibnu mubaarak gars yi dañoo del def ñu ñëw ci moom ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu ana lan muy jikko ju rafet te nga résumé ko ci baat bu gàtt mooy dane leen tarakul xadab tarakul xadab waaw na nga bàyyi mer waaw bul di mer ñàkk mer daal daa bokk ci xusnul xulq dafa bokk ci jikko ju rafet dafa bokk ci jikko ju baax dafa bokk ci li nga xamante ni mooy tax nit ki mu am jikko ju baax jamuy jikkoo ci penc bi day tax mu doon borom jikko ju sell waaw day tax nit ki mu doon borom jikko ju noobul ba léegi bokk na ci ñu yare ci keppaaru sahaaba yi ridwanullahi ajmain te mooy allaamatu said rahimahullah daf ne man gadal basarahu anil maharima anaara allahu basaratuhu waaw nee na képp koo xamante ne sàjj nga say gët sàmm nga sa xoolin danga choisir la ngay xool ak la nga xool tànn nga la ngay gis ak la nga gis ba tax na boolewuloo ci di xool lépp lu yàlla xaraamal boolewuloo ci la ngay xool lu yàlla xaraamal boolewoo ca la ngay gis la yàlla xaraamal neena bur buur yàlla day leeral sa gisin day leeral sa xarkanam day leeral sa dënn waaw te loolu tegtal ba fa wàcc bari na lool xataa am na ñu tegtaloo ñu ne képp ku sàmm gëtëm képp ku sàmm gisam sàmm say bët sàmm sa xoolin sàmm ràññet loo nga la ngay xool choisir nga la ngay xool ak loo dul xool pendant quarante jours la la bett ci la xaraam nga dumóoyu ko bañ ka xool ba xàmmee ko masalan la xaram ne tey sa kanam nga gis loo wurut a gis waaw loo xamante ne fooguloo ne dinga gis mu bett la non spectal mu jékki-jékki rek ne la tey waaw nga séen ko xool ko mu ñëw faj atan mu doon lala la bett masala ngay dox tourner rek yem ci jëmm joo xamante ne la mu sol kenn na munu koo xool waaw sa premier teg bët ba nga teg bët waaw sa réflexion wan la ne kii la mu nekkee nii du lu islaam santaane dafa bokk ci lu islaam ñaawal bu fa nekk di ko géem ràññetle ci saasi nga wëlbati sa xool loolu mooy xoolin walla gisin bala bett nekkoo fa di xool nu mu mel ak tuuti waay beeg réyaay beeg couleur beeg ñuulaay beeg xeesaay beeg yére bi nu mu mel nekkuloo fa sa diggee ma distingue loolee comme yow dangay doon dox sa bët tegu ci premier coup ba sa réflexion joxe ne lii lii la kii kii la ràññetle nga jigéen ak góor ràññetle nga cëru jigéen ak cëru góor ràññetle boobu noonu nga ràññeetle sa réflexion bu mu tegee ci loole nekkuloo fa di ko gémma xoymet di ko géem xoolaat premier coup sa bët daj ci loole taj nga wëlbati sa xooleen xool feneen tudd sellam yàlla tudd sellaange yàlla ne subhaanallah oh ok ki dëkkee noonu pendant quarante jours yonent nee na yàlla day leeral sa xol day leeral sa dënn lu baax rekk ngay xeeñtu lu baax rekk ngay bëgg lu baax rek mooy doon sa bëgg-bëgg leneen lu dut lu baax sa yoon du ci nekk yàlla mooy orienté sa xol jëmmale ko foofee mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñuy sant di gërëm fidèle auditeurs yi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ak yeneen programme ya fiy xew ci Rewmi FM wala ci Rewmi TV ki mel ni Kéba Ndiaye depuis Kër Massar Jaxaay unité 24 ku mel ni Ousmane Cissé depuis Kër masar moom ci parcelle Kër Massar unité 24 ku mel ni Ali Jaxate Kër masar unité 24 parcelle ku mel ni Aboubacar Su Soumaré moom mu ngi Kër Massar depuis unité 24 mu nekk Makhtar Dramé sama doom mbay Euh, Grand Yoff ci monument euh, monument Grand Yoff ki mel ni benn kooku mooy sofooru Dakar dem dikk ba nekk euh, Kër masar unité vingt 24 ñu nuyu waa terminusu Kër Massar parcelle unité 24 ku mel ni suñu njaati gi ba fa nekk di góor gi gay ku mel ni sofoor ba ñu naan benn moom fala nekk ku mel ni suñu waaju baax moom mu nekk conducteur ci société boobu di suñu waaju baax Mor Ndiaye ku mel ni receveur bu ñu naan Ibrahima juuf waa waaye mook euh, ki muy àndal ci wala bi nga xamante ne mooy jëlee nit ñi si bërëb ba di leen yóbbu fa ñuy jëm di sant bu doy waar woowu di jaxate waaye fàttewuñu ki nga xamante ne mooy ordonné képp ko ñëw ci terminus bi moo lay orienté di sama sëriñ borom daara ji Mansour Jaxate maa ngi lay ziar waaye sama saane kunda bi fàttewum ma ko ak mboolem ñi nekk ci euh, béréb boobu ñu di si xëy ñu doon ñu am pastif ñu am euh, dayoo ci seenu liggéey ñu am euh, ñëwent ci bépp client ba ñëw ngir dugg waruwaay boobu ñu leen di sant di leen gërëm ñoom ñooy ñi yore euh, ligne deux cent trente quatre wala ñu yore ligne onze bi ñuy jëlee nit ñi dakaar di leen yóbbu béréb boobu ñu di leen di ñaanal yal leen yàlla taxaw yal leen yàlla sàmm ñuy bàyyi xel rajo bi la ñuy bàyyi xel waxtaan bi la ñu di leen ñaanal yàlla yal nañu yàlla def dégg topp amin ya rabbal alamin mbokk yi. bi léegi bokk na ci euh, ñu ñuy sant mu tudd Mor Fall depuis Liberté cinq mu nekk terminus euh, Liberté cinq moom it mu ngi euh, Dakar dem dëkk ci terminus Liberté cinq waaw lii mooy loo ñoo xamante ne ñooy fidèles auditeurs yi nga xamante ne nuyu nañ leen ñu di leen ñaanal yàlla yàlla leen yàlla sàmm aar leen lépp lu ñu njëriñu si waxtaan bi yal nañu ko yàlla defal xasanaat fil mizaan ba tax na. loolu mooy euh, la allaamatun said rahimahullah moom it mu wax ñu ne man gadda basaruhu képp ku sàmm bëtam ba du tegee ci lu ne ba tax na bañ naa xool lépp lu yàlla xaraamal yonent bi ne anaara allahu basaratahu kooku mooy ki yàlla di leeral xoolinam kooku mooy ki yàlla di leeral xolam kooku mooy ki yàlla di leeral gisinam kooku mooy ki yàlla di leeral bëtam waaw bu ne bët nag mooy la nekk ci bopp bi waaw ñaari appareil yay filme di photo di xool di gis waaye bu ne la nekk ci xol bi nag mooy euh, la nekk ci dënn bi loolu mooy xol bi waaw xol bi moo lay bëggloo moo lay bañloo waaw lu tax ngay xool ki futteeku nii lu tax nga di ko xool waaw boo ko xoolee tamit lu tax nga di ko xemmem lu tax nga di ko bàyyi xel xool bi moo lay introduire comme moo lay bëggloo waaye euh, boroom xam-xam bi di allaama as-said rahimahullah nee na képp ku tere boppam képp ku téye bëtam bi mu bañ a xool lépp lu yàlla xaraamal yàlla dina leeral sa dënn bi li ci dënn bi nag du dara lu dul xolu doomu aadama kon noonu la ñuy déggee la nga xamante ne mooy maana waxu boroom xam-xam bi di saad rahimahullahu taala noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa di kone ne allahumma zidna wala tanqusna yal nañu yàlla yokk yalla bu ñu yàlla wàññi ci dara yàlla nga ñu yokk ci lépp lu baax la nekk fa yow waaye yàlla boo ñu wàññi lépp lu baax la nekk fa yow allahumma na yàlla ñu yàlla yokku wala tanqusna yàlla boo ñu wàññi ci lenn ci dara waaw yàlla nga ñu yokkal wërsëg bi yàlla nga ñu yokkal barke bi yàlla nga ñu yokkal nawet ba ñu nekk ni yàlla ñu ko yàlla defal nawetum jàmm inondation ba nit ñi di loru yal na ko yalla soppi mu doon mu bañ a doon inondation ba nit ñi di loru yàlla nga ñu yokk nawetu barke mbéy bi yal na ko yàlla barkel buñ ko góobee tamit lépp luñ ci yëngatu yal na ko yàlla barkel amin ya alamin yàlla bu ndoxu taw bi bañ a wàññeeku yàlla boo ñu wàññil ndoxu taw bi la béy tamit yàlla boo ñu ko wàññil yan ñu ko yàlla yokkal amin ñu di ko wax ne bi léegi wakrim naa yàlla nga ñu teral yàlla boo ñu doyadal yàlla nga ñu boole si ñu tedd ñi yàlla boo ñu boole si ñu doyadi ñi yàlla boo ñu doyadal ci lenn yàlla nga ñu teral ci lépp nag waatiina wala taxarim na yàlla nga ñu may yàlla nga ñu may yàlla boo ñu tere yàlla boo ñu araamal lu baax lu jekk la nekk fu yow yàlla boo ñu ko xañ waaw yàlla nga ñu jox yàlla nga ñu may yàlla nga ñu ubil te buntu wërsëg yu yaatu yi yàlla nga ñu may mayaakoor bu mag bi du kenn yaa yore lu du jeex yaa yore lu ne gàññ waaw ñu ngi lay ñaan waatiina yàlla nga ñu may waatiina yàlla nga ñu jox wala taxrimna yàlla boo ñu xañ allahumma inni as'aluka min kulli xayrin xazainuhu bi yadik yàlla ñu ngi ñaan bépp yiw magasin ba fala yow la nekk yaa yore mboolem magasin wu yiw yi yàlla nga ñu ko jox waaw ñu ngi lay ñaan mboolem magasin wu yiw ya nekk fa yow yàlla nga ñu ko may wa auzu bika min kulli sharrin xazainuhu bi yadik ñu ngi làqu fa yow nga musul ñu mboolem yu ñaaw yi nga xamante ne magasin bi yaa yore caabi ji yàlla nga ñu ko tëjal yàlla boo ñu ko ubil waaw yàlla nga ñu tëjal mboolem manga magasin yu ñaaw yi nga xamante ne xam nga ko waaw te nga yore seeni caabi yalla boo ñu ko ubbil waaye yàlla nga ñu ubbil mboolem magasin yu yiw ya nekk fa yow te yow dong yaa yore caabi kon julit da nga war a doon koo xamante ne à chaque fois da ngay tàllal sa loxo sa borom di ko ñaan di ko di ko ñaan waaw ñaan yàlla dafa bokk ci dundu doomu aadama su ko defee ngay ñaan sa borom buur yàlla di la dottil xéewal ya nekk fa moom su ko defee ñu nit ñu ngi koy ñaan di ko ne allahumma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha mbokk yi waxtan bi jeexut daa fekk ne rek dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin lu jub si kàddu gi ñu sante ko yàlla lu ci dëng nag mata di doomu aadama la ak ki def waaye la doon suñu mébét mooy ñu joxe ko kom ni mu nekkee yal nañu yàlla may dégg ak topp allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu